macha allah d' abord nuyu la ziar la bu baax félicité grand bi ci li mu wax daanaka dañ ci dañ ciy sof rek parce que boo xoolee actualité bi li ci gën a fës mën nañ ne Gabon la muy dynastie Bongo bi nga xam ne yàlla dogal na mu daanu te liñ ci mën a jàngee bari na lool parce que naa ne nguur léeg-léeg déglu askanam dafa am solo lool man jàpp naa ne Ali Bongo bu fekkoon déglu na bu baax askanam waroon naa mën a génn sax ci élection yi bañ cee bokk ba lu mel nii di ko ci dal ndax nguur gi yore woo ko lu dul ngir peuple bi peuple bi it comme que démocratie mooy dox ki ëpp ñi nga xam ne ñoo ko jox ay xob kooku defalu donc ba keroog ngay daanu dina am ñoo xam ne dañuy ànd ak yow. c'est sûr amul ma dem ci ñoom mais est-ce que ñi ëpp yow la ñu àndal te loolu moo la fi tegoon boo demee ba yëg na li ëpp ci peuple bi daanaka rocc nañ seen loxo ci wul la nga jiite li waroon mooy nga nga noppalu ji parce que peuple bi ñoom ñoom ñoom ñoo la fi bàyyi mais boo demee nag ba nguur njariñ yëm làmboo ànd ak moom nga dem ba xër ci boo xefee rek li ñaan dabal teraanga kenn du ko ñedd su boobaa sa loxo la ñuy téye rek ñu cax te mooy di ko dal nii loolu nag dara jaru ko jàpp naa ne bu déglu woon peuple yi fi yëpp du fi surtout que élection yële ñu wax ni moom moo ko gagné bëri woon na coow bëri ah, woon na coow te am na loo xam ñàkk seen bakkan voilà waaw 2016 am na am na réalité yoo xam ne peuple mën na ko bañ a xam mais yow mi yàlla dogal ngay jiite yor say renseignements généraux war ngaa mën a def toujours ay sondage xam yow foo toll ci réew mi loolu c'est c'est c'est possible yow mi président jiite réew war ngaa xam fan nga toll ci peuple bi ba nga xam ne bu ñu seppee seen loxo ci yow amatul benn intérêt bu war a tax nga war leen a jiite lu ko may rek yu mel nii la mën a jur te kenn souhaité wu ko li ñuy ñaan mooy ku jiite jiite ci jàmm jëriñ peuple bi jëriñ askan bi su ko defee ñu ngi ci seen bopp man jàpp naa ne un vrai président sax léeg-léeg campagne doo ci sonn mhm. ndax sa bilan war na laa mën a koy mhm. campagne mhm. mais boo demee bay xataraayu ngir campagne fësal li nga def wax nangam nangam cela veut diir que xam nga ne yaa am na lu lay lor ñi te loolu bañ ko fekkee moo gën parce que dañ ne gàcce gu ndaw moo gën gàcce gu rëy donc lii mënoon na cee mënoon na cee